directeur général UM Pamecas directeur général adjoint UM Pamecas représenté fii directeur général Modou Faye ànd ak euh, le président du conseil d'administration Modou Moustapha le président du conseil de Pamecas Touba Moustapha Gueye ànd aussi ak Aline Dieye moom mooy chef d'agence PAMECAS Touba moo fi teewal directeur général fii ci Touba mais ànd aussi ak le directeur technique et commercial Thierno Ndiaye ak la directrice chargée de la mobilisation de l'épargne Adama Ba ñoo fi ñëwoon tey di bokk ak sëñ Habib Mbacké sëñ Fallou signature bu aju ci convention bi lëkkale PAMECAS ak Touba ci kanam bokk na ci li ko lal kenn ku nekk ci Sénégal xam nga ci Touba ca kanam lan lay yëngatu xam nga aussi lan mooy seen philosophie lan mooy seen stratégie dañuy natt dajale boole seen doole ngir defar dëkk bii di Touba te fu ne lay waay di jóge di jobbante ab barkeloo yàlla dogal itam PAMECAS di yëngu ci wàllu finance mais finance sociale nga dégg ci ne ci li PAMECAS di yëngu daf ci jiital jàppale néew di doole yi nga xam ne mënuñoo jotale ci banque yi ñu xam PAMECAS day dem fekk leen ci seen ndool di liggéeyam ñoom ngir fexe ñu génn ci ndool boobu mu ànd nag dëppoo lool ak lii Touba ca kanam di def ñu jàpp ne ñaar ñi war nañoo mën a boole seeni doole ngir li ñuy yëkkati jëmale ko ci population yooyu mu gën a ñoom loolu moo lal ànd bi léegi nag ci niñ ko fas yéene doxale mooy ginnaaw Touba ca kanam day dajale alalu askan bi dañuy jublu ci lii senegal yi fas yéene barkeelu ci Touba ci kanam ñu koy dugal ci ay compte yu nekk Pamecas mais ay compte yoo xam ne ci turu Touba kanam lañ koy ubbi fu waay nekk ci Sénégal moo xam Kédougou la wala Matam wala sax ci bitim réew ngay sénégalais fas yéene barkeelu ci lii Touba ca kanam di liggéey ci Touba mën nga koo jaarale ci Barcas du yàggu dara ñu dinañ ci joxe ay information yu précise ci canal bi ñu mën a jaarale pour jotale seen barkeelu ci lii Touba ca kanam bi yëkkati waaw finance islamique ñun nag dañ cay yàgg ndax 2010 ba léegi ñu ngi ciy yëngatu yàlla dogal xame bi ak Touba ca kanam ñëw ak ñoom li ñuy fas yéene yëkkati ci Touba Touba di dëkkub diine kon li ñuy def ci finance islamique ci Sénégal fii lañ ko gën a war a mën a jëmmal yàlla dogal itam PAMECAS Touba bi am finance islamique depuis at yu bari kon boobu ba léegi ñun ñu ngi yëngal fii finance islamique ci Touba kon lëkkaloo bii ak Touba ca kanam du def lu dul gën a dooleel. li nga xam ne déjà ñu ngi koy def ci wàllu finance islamique jëmale ko ci population Touba rawatina nag ci jigéen ñi ndax xam nañ ni Touba ca kanam daa am yitte lool ci jigéen yi li ñuy yëngatu ci li leen jàppale ñu fas yéene ko doxal ci wàllu finance islamique gën a dooleel li Touba ca kanam di def ñu boole ci sax fas yéene di leen jàppale ci luy former jigéen yooyu ci luy gën a ñoŋal seen seen